wa jalla bi nga xamee ne nag am na ñeent fukki at nag sunu boroom yónni ko am na màkk fukki at ak ñett yoo xam ne ay fitna ak i coono rek la ko def ndax ñi muy woo ñenn ñi gëm nañ ko ñenn ñi gëmuñu ko woote bi da ko doon xumtoo ci tàmbali bi mujj sunu boroom euh, xamal ko ne ko mën nga koo fesal wa anzir ashirataka al aqrabin mu tàmbali noonu ñu ko xamee bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam gàddaay na dem madinal munawwara ànd ak aboubacrin siddiq ak ñenn ñi nga xam ne ñoo gëmoon te yéenee dem rek ngir rawale ji diine ña nga xam ne sax rawale ji wuñ diine moom da leen cee génne woon daa di wax xadis boobu yi nga xam ne mutawaatir la ña dëppoo nañ ci wéram innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli imri nawa yi jëf yëpp ci yàlla ci yéene rek la ko takk képp koo xam ne da ngay gàddaaye ngir rawale diine ak ak dimbali ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nga am tuyaaba jooju képp ko gàddaay ngir takki soxna tuyaabay ko takk soxna ngay am képp ko gàddaay ngir dem commerce ji bénéfice commerce ngay am nga xam ne kon l'islam lépp yéene moo ko lal loolu lépp ay njàngale la loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko doomu aadama yi ba mu ñëwee Madina nag nit ñu baax la fa fekk ñu daal di koy teertu bañ ko gisee si tund bi muy ñëw rek ñu tàmbali def tabala daal di tàmbali tala al badru alayna min saniyati alwadai wajaba shukuru alayna ma daa lillahi daa jaari daal ñun daal ñu ngi fesal sunu cant ak sunu mbégte ci gan gu tedd gi ñu am ah ba fa demee nag fukki at yooyu nga xam ne moom la fa amaat ci lislaam te xam ne yonent bi dundam juróom benn fukki at la ak ñett fukki at yu barkeel la ndax lislaam fa la tàmbalee di tasaaroo tasaaroo lool ba duggaat màkka la fa xew ci ay xeex xaswatu badrinil kubra xaswatu uhud xabail maanaam giiru yahud ya fa nekkoon ñu bani xurayza bani nadir bani xaynuqaa am na ci ñoo xam ne yonent bi da daan siñanteeg ñoom ay accord yoo xam ne moom dana ko respecté waaye ñoom duñ ko respecté yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe mu ànd kook ñoom rek di dox ndànk rek di tasaare lislaam ba nga xamee ne fukki at yooyu mat na nag ba des ñaari at mu yàlla def lislaam gën a tasaaroo lislaam am doole lool yonente bi delluwaat màkka moom la ñuy tudde xajjatul widaa nga xam ne mi ngi am ci juróom ñetteelu at ci madinal munawwara ba fa yonente bi jógee def fa discours bu am solo boo xam ne fa daanaka ñu bari ba mu waxee dañu dañ doon jooy ndax dañoo yëg ne mi ngi tàggoo ba mu fa jógee nag daal di dellusiwaat madina xam nga ne eh, eh, jekk noon yi daal di leen di jéggal de ne leen lu ngeen xalaat ne moom laa leen di def tey jii bi ma leen jekkoo ñu ne ko ay yow ku baax nga doomi ku baax nga doo def lu ñaaw mu daal di ndeysaan daal di leen jéggal ci jikkoom ju rafet ja lislaam kon daal di dellu màkk daal di fay tàmbule yaatu xërëm ya ne woon ca kaaba ga ñu génne ko toj ko daaneel ko ah lislaam daal di tàmbulee dund diggante madina ak màkka ak dëkk yooyu nga xam ne ci biir euh, golfu araab bi la jamono yooyu noonu la lislaam tàmbulee di yaatu ndànk-ndànk waaw bi loolu jeexee nag euh, étape boobu daadi di jeex ñu sallallahu alayhi wa sallam euh, wuyu ji boroomam bi mu wuyu jee boroomam euh, terewul boobu Aboubacarin sunu boroom dénk na ko ngëm ak dëgër goo xam ne jullit ñi dëppoo nañ ci fal ko mu nekk xalifatul muslimin al awwal daal di wéyal woote boob yi nag kon ñu taxawandi foofu